Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Euh, pratiquement 25 à 30 minutes de retard sont les ñu nekk euh, du côté de Mbour la petite euh, côte xam nga fan yi moom li ñuy daw moo bare 800 kilomètres entre Kidira et Mbour rien que pour vous servir euh, wax li nga xam ne moom moo am fii ci diwaanu Mbour une ville cosmopolite une ville d'accueil une ville carrefour une ville qui mérite d'être euh, revue, qui mérite d'être euh, euh, construite, disons, parce qu'apparemment, pratiquement tout est à faire dans cette ville. On ne dira pas que la ville a besoin de maire, mais la ville a besoin quand même de ses fils pour euh, se redresser, parce que l'embouteillage, l'assainissement, l'insalubrité, l'insécurité, il y a énormément de choses à faire dans cette ville. À l'orée des élections municipales, on s'est dit, il fallait venir voir ce qui s'y passe et ceux qui font Mbour. Je dis bien ceux qui font Mbour. entre autres fils euh, de Mbour Cheikh Issa Sall bi jiite li nga xam moom mooy mouvement Am Dem agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour ak Am Dem Mbour day dem c'est ça leur slogan euh, un homme euh, qui a fait l'université Cheikh Anta Diop génn fa ci wàllu droit def itam master en finance publique nekk administrateur civil ba mu génnee jot na jaar fi nga xam ne que ni moom mooy gouvernance bu Saint-Louis Euh, dem fi nga xam ne que mooy ministère de l'intérieur temps bi fa général ñaa nekkee donc juste euh, avec l'avènement de l'alternance et depuis euh, li muy avancé di gravir les échelons toujours mi ngi jàng loolu moo ko indil sax d'ailleurs mu def relations internationales fi nga xam ne que ni moom mooy CDE centre d'études diplomatiques et stratégiques antenne de Dakar donc bu Paris antenne de Dakar c'est avec cet homme aujourd'hui euh, directeur général de l'ADM, l'agence de développement municipal, au moment où le président Macky Sall pense, estime, et dans sa vision dit que l'émergence partira des collectivités territoriales donc des terroirs euh, c'est tout à fait normal pour ñun ñu daje ak moom euh, fekk fi nga xam ni kenn fa la fekk baax muy mbuur mën a waxtaan ak moom Cheikh Issa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax euh, benn maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa 2 2 maa ngi leen di euh, féliciter également féliciter leen ci liggéey bi euh, vous l'avez dit tout à l'heure euh, huit cent kilomètres pour servir les Sénégalais huit cent kilomètres pour servir les téléspectateurs huit cent kilomètres pour participer au développement économique et social de notre pays loolu jar na ñu leen ci bu baax yéen nag seen président groupe bi monsieur El Hadj Ndiaye ak vraiment tout le personnel Euh, Mbour ñu ngi si jàmm alhamdulillah comme ni nga ko waxee c'est une ville cosmopolite c'est une ville multiculturelle c'est une ville d'accueil c'est une ville touristique une ville de pêche une ville d'agriculteurs une ville de de d'éleveurs une ville d'artisans une ville euh, vraiment culturelle euh, c'est une ville qui mérite toute l'attention des autorités mais également une ville qui mérite vraiment que doomam yi jóg euh, taxaw ku nekk euh, li nga am li nga man li nga xam nga yéene ko dëkk bi fas yéene nag taxaw pour que dëkk bi jëm ci kanam. Ah, euh, Cheikh Issa dama bëggoon entrer vraiment dans le vif de sujet des questions pas tout mais li ma gën a jaaxal mooy ni d'habitude Euh, Mbour c'est la capitale départementale Mbour moo daawoon porté li nga xam ni moom mooy département bi euh, gis nañ fii toujours et ces leaders dañ daawoon jouer de grands rôles au niveau national euh, feu Caroline Diop parfois damay toog ma ni même le grand Badouba qui a été député à l'Assemblée nationale mais depuis quel temps on a l'impression que les fils de Mbour quel que soit jàng bi ñu jàng daf mel na bëggatuñu politique wala bëggatuñu investir pour seen localité ba xam Euh, l'Interland de Mbour Thiadiaye et cetera ñooñu ñoom ñooy porter le leadership local quelque part ça nous fait pas mal. Euh, si c'est euh, une des raisons de notre engagement politique c'est-à-dire Mbour c'est la locomotive Mbour c'est la perle de la Petite Côte. Mbour mooy capital bi Mbour mooy fi nga xam ne fi la préfet di yeewoo le médecin chef fi la yeewoo. le président du tribunal fii lay yeewoo Mbour euh, avec son interland dafa am ay relations yu war a am mais des relations yoo xam ne respect moo ko war a lal euh, considération des échanges gagnant gagnant euh, ku nekk vraiment jouer ce statut ba nga xam ne dina am un développement harmonieux du département mais depuis un certain temps comme ni nga ko waxee depuis fa Demba Diop Caroline Faye mm. on a vu que Mbour au lieu d'être la locomotive Mbour e peut-être si wagon yi nekk si digg bi wala ci ci ci fin bi mm-hmm. loolu nag tous les fils de Mbour l'ont compris et ont décidé de se lever pour euh, vraiment se souder en une seule personne et de lutter pour que Mbour euh, reprenne sa place donc loolu vraiment c'est une des raisons de notre de notre engagement politique ñun ñëpp ñi nga xam ne nii boo xoolee Mbour léegi tu vois des des mouvements yi jóg des leaders yi qui se qui s'affirment mais la principale, euh, l'une des principales raisons, à part l'émergence de Mbour qui est une préoccupation euh, vraiment partagée par tout le monde, moi, il faut que Mbour développe. Parce que Mbour, président Macky Sall, le triangle vertueux, Dakar, Thiès, Mbour. donc Mbour am ay potentialité yu bëree bëree bëri mais ba tey fi mu waroon àgg ci développement àggu fa une des causes nag yi tax mbuur demul développé wul ba tey relancé wul ba tey loolu ci la parce que on de des responsables dans le département euh, yoo xam ne euh, mbuur développé ak ñu per ñu ñàkk seen bakken moom lañ yemale donc jàpp nañ ne bu amee mbuur ay leaders yu affirmé wu rek ñoom seen euh, avenir politique wala seen carrière politique dafay am lu si sooxe alors loolu c'est c'est une erreur c'est une erreur de leur part mais il faut qu'ils comprennent également qu'au niveau de Mbour il des fils et des filles qui ont été bien formés, bien éduqués et qui ont maintenant décidé nag de prendre en charge euh, vraiment destin wu Mbour donc c'est analyse bi nga def en tant que li naan on a toujours besoin de l'aide d'un étranger bi nga def moom la waa Mbour yi tamit def moom la doomu mbuur yi def ba tax actuellement ñu jog nag fas yéene replacer Mbour si fi mu war a taxaw place bi mu war a taxaw ñu tegaat ko fa loolu doomu mbuur yëpp fi mu nekk comprendre nañ ko ça nag ça n'empêche pas que euh, Mbour avec son hinterland am relation yi ñu war a am boo bayee caay-caay nga xam ne am nga un grand marché à Mbour boo amee jën Mbour nga xam ne am na un marché à caay-caay wala am nga ko à Njagañaaw donc relation boobu noonu moom la euh, Mbour et son interland war am mais Mbour ne doit pas être sous protectorat de Thiadiaye wala de Ndiagaña wala de de de de de Fissel wala de de Sandiara donc loolu tamit euh, c'est une des régions de notre combat politique tey. Euh, Cheikh Issa dañu gis ni que mouvement bi nga taxawal mi ngi tudd am dem. c'est comme je suis parti j'ai étudié euh, j'ai pu. au moins euh, ci sama wàllu carrière def l'essentiel euh, li ma fa récolté c'est du giving back am paye leen ngeen dem donc vous apportez cette plus-value la ce que vous avez gagné à votre terroir donc am dem tey en terme d'action concrète puisque da ngay jox wa Mbour pour que dëkk bi mën a décoller lan nga tegagum si loxo waa Mbour. am dem mooy am jom am gor am xam-xam am fullaak fayda am taxawaay am détermination am gëm-gëm pour mën a yóbbu Mbour ca kanam dem ca kanam donc euh, si loolu je crois que li ñu njëkk jox waa Mbour mooy conscience bi conscience bi réveiller conscience yi sur le plan de l'émergence sur le plan environnemental sur le plan de la citoyenneté ñëpp jógaat ñëpp gestuwaat ñëpp xam ne ku si nekk si ñun am na luy nelaw ci yow loo xam ne mbuur soxla na ko nga fas yéene ko na jox mbuur na ko am mbuur lii maako am si xam-xam lii maa am si man-man lii maako am ci relation lii maa am si influence pour que mbuur mën a dem ci kanam donc si loolu euh, déjà liñ jëkk réussir mooy fédérer les fils et les filles de Mbour actuellement ñoo xam ne masuñu def politique des cadres émérites yoo xam ne dans leur domaine ils excellent ñëpp retourné waat nañ mbuur taxaw nag fas yéene liñ am a ko wala liñ mën a ko ñu yéene ko mbuur di ko ko jox beneen bi mooy avec la mutualisation de nos moyens de nos possibilités de nos relations de ñu ngi jàpp si santé bi ñu ngi jàpp si éducation bi en construisant des salles de classe wala di defaraat ay miir yu daanu ñu ngi jël en charge des étudiants avec des appartements à Dakar euh, di jàppale waa Saint-Louis di jàppale waa Bambey feneen feneen donc euh, système éducatif bi également au niveau de Mbour ñu ngi def ay cours de renforcement gratuit def ay cours de vacances euh, gratuits di jàppale élèves yi ci ouverture yi pour que lu ubbi tey la soit une réalité en leur donnant de d'autant de kits scolaires dañ jàppale ci inscription il fallait le faire mais bu mujj bi sax on était à dix mille dix mille élèves yoo xam ne defal nañ leen cours de vacances pendant un mois bi ñu paree ñu jox leen ñoom ñëpp ay kits donc loolu tamit c'est avec la mutualisation de nos moyens, comme nous me le créé, tous les cadres de Mbourg, avec euh, l'avènement de Amdem, sont revenus pour euh, essayer de contribuer à l'émergence de notre, de notre cité. Donc, nous pouvons saluer vous. Aujourd'hui, nous euh, avons Mbour, nous avons embouteillage dafa nekk lu leen créer le problème assainissement durant l'hivernage dafay nekk loo xam dafa tegg yi dafay di bare tey vous êtes directeur général de l'ADM donc xam nga bu baax euh, plan cadastral plan d'aménagement d'un terroir <laughs> nu ñu koy defee loolu kenn du la jàngal bi nga nekkee au niveau du du ministère de l'intérieur itam au niveau supra doon nga xool naka la kii est-ce que tey euh, Cheikh Issa maire de Mbour la vision est claire le programme xam nañ ñu tout de suite les travaux commencent loolu mooy li nga xam ne nag moo ñu gënoon préoccupé parce que ñun bugguñu Euh, di décevoir bëgguñu nit ñi am yaakaar si ñun ba pare ñu ñëw di ñi am déception si ñun moo tax on s'est bien préparé il euh, y a le 28 décembre dernier on a appelé tous les c'est la jeunesse moo ko porté on mais on dañu oo waa Mbour yëpp ñu présente leen un plan d'aménagement et de modernisation de la ville de Mbour si plan boobu dañ ko defar avec des ingénieurs des architectes des urbanistes des environnementalistes même des GG en euh, génie côtier ñoom ñëpp ñu indi leen te li ci bëri nag li ci gën a neex mooy ñu si bëri c'est des compétences euh, locales c'est-à-dire des Mourois qui sont qui des des expertises pointues dans ces domaines-là de gestion urbaine ñoom lañ jël ñu ànd ak ñoom pendant six mois defar benn plan d'aménagement et de modernisation de la ville de Mbour ñu présenté ko waa Mbour ñu gis ne ñii kat à plus de an de des élections locales ñoom ils sont déjà prêts parce que xam nañ vision bi xam nañ leen 30 mètres boo gis mbuur xam nañ lan moo fa war a nekk ban tali façon tali lañ fa war a lañ fa a tëral ban système d' assainissement moo fa war a nekk quartier yi am ndox ay inondation xam nañ ban système de drainage moo fa war a nekk fu ndox mi agul xam nañ ko fu courant bi agul xam nañ ko donc école yi yenn salle ñaata salle de classe moo manqué xam nañ ko le personnel technique dans les hôpitaux eh, ñaata lañ ñaata moo manqué ñaata lañ si war a dolli comment fair pour accompagner les jeunes yi def ay formations dans ces domaines-là pour que dans deux ou trois ans ñu mën a combler ce gap-là tout a été vraiment euh, ficelé dans ce programme des na nag parce que kaay ma defal la bu nekk nag kaay ñu defandoo ko moo gën donc ce plan-là doit faire l'objet de restitution on prévoit les rencontrer enseignants yi pour ce qui concerne le système scolaire ñu wax ñu ñoom seen xalaat si plan bi le système de santé ñu wax ñoom lu ñu euh, par rapport euh, li ñuy wax système référence contre référence pyramide sanitaire bi ñoom est-ce que lu ñu si war a dugalaat lu ñu si war a génne sur le plan culturel Mbour c'est une ville culturelle boo xam ne ne serait-ce que l'aspect culturel pour développer Mbour donc loolu tamit boo dajalee acteurs yi ku nekk mën na la wax li mu si xalaat bu ko defee ñu renforcer plan bi bëgg nañ dans six mois plan bi nekk un plan complet bi ñu ko lancé également et loolu dama si remercier vraiment les Mbourois y a des cadres yoo xam ne ils sont apolitiques ils sont dans la société civile ils sont dans les ONG qui ont pris les domaines qui les intéressent actuellement ils sont en train de rédiger des contributions pour indil ñu ko ñu renforcer plan boobu donc ñun bëgguñu décevoir bëgguñu digee luñ mënul bëgguñu wax lu ñu xamul bëgguñu dugg si luñ mën luñ mënul wala loo xam ne ku ñu fekk vraiment doo ñu naw moo tax on s'est préparé waxtaan si suñu biir ne ñun kat bala ñoo dem si mairie bi il faut que ñu yóbbuwaale loo xam ne bu ñu toogee sa ëllëg sa rek dañuy commencé di nekk si préoccupation wu mbuurwaay parce que euh, lor dong moo ñu tax a jóg moo ñu tax a dugg ci affaire bi. Euh, euh, petite précision et détail euh, Amdem est carrément ancré dans Benno Bokk Yaakaar. et vous que le président de la République Macky Sall dafa am euh, une vision am na fu mu jëm émergence la wax il faut que nga ancré wu ci loolu pour mën a suqali mbuur. et même durant les locales bu fekkee am na feneen fu ñu leen soxlaa yéen am dem au niveau national ngeen bokk. no loolu moom euh, boo gisee dina agir avec Macky ñun boo gisee sunu yenn problème yi am sax fii au niveau de Mbour. avec certains responsables c'est ça ñun on est arrivé à Macky Macky donc donc am na ñoo xam ne dañuy bëgg nekk intermédiaire entre euh, yow ak Macky. Mm-hmm. ñun nag makki dong mooy sunu mooy sunu leader programme mu Macky mooy sunu programme vision mooy sunu vision. donc euh, nekkuñu ci ay complot nekkuñ ci ay ay gisee ci suuf nekkuñ ci tamit ay perspectives ay après Macky Sall ak nangam nangam donc loolu sax indil nañu ay quelques difficultés avec certains leaders qui sont dans le département. le programme liggéeyal ëllëg 5 3 5 bu Macky Sall bi mooy ñun sunu référentiel politique ba nga xam ne nii même sunu plan d' aménagement et de modernisation de la ville de Mbour bi foofu mooy cëslaay yi foofu mooy. maanaam euh, référence bi foofu lañ jëlee par exemple bu ñu nee opération quartier propre ñu ngi koy jëlee si euh, programme zéro déchet bu ñu jëlee euh, les accès accès universelle à l'eau accès universel à l'électricité bu ñu jëlee accès yi ñu war a def vraiment réseau électrique bi wala réseau adduction d'eau bi ñu war def à Mbour ci programme Macky Sall boobu fa lañ ko arrimé donc ñun lépp lu ñu prévoir au niveau local rek dafay am benn benn point bu am solo ci programme liggéey euh, mooy les cinq euh, euh, hmm. initiatives trois programmes et les cinq accès di président Macky yi mu def ci liggéey ëllëg bi muy deuxième phase plan Sénégal émergent ñun foofu mooy sunu programme bi nga xam ne mooy sunu ndaal yi nga xam ne fa la ñuy roote nag fas yéene ko sotti ci département de Mbour et plus particulièrement dans la commune de Mbour donc ñun Macky mooy sunu leader. le programme plan Sénégal émergent mooy sunu programme la vision liggéey ëllëg Macky 535 mooy sunu vision entre Macky Sall ak ñun amul intermédiaire kenn duñu dugal ci beneen mbir boo xam ne ñun comprendre uñ ko gëmuñu ko xamuñu ko. Eh, eh, eh, Cheikh Issa assez souvent les maires c'est des problèmes fonciers. Mm-hmm. les maires c'est des problèmes avec euh, le fisc yow da nga def. bi nga jàngee droit Paris master en finance publique. Mm-hmm. ba pare def relations internationales ça veut dire que tey euh, la gestion financière d'une collectivité locale warul nekk secret si yow. Mm-hmm. en termes de manuel de procédure. Mm-hmm. en termes de transparence de gouvernance financière mais surtout en termes d'apport par rapport à la coopération directe. Euh, dem bitim réew. indi ñoo xam ni xarañ nañu si yenn domaines yi nga xam ni que ni sa terroir na ko soxla. loolu euh, commencé nañ ko sax mettre en œuvre parce que on a des stratégies de mobilisation de ressources. yoo xam ne au niveau de la dem par exemple dañ koy euh, sur requête d'une collectivité territoriale mën nañu dem si benn commune ñu jàppale la ñu defal la étude bi yëpp wax la ne la boo laalee si levier bi wala bi si recet dina multiplier wu par deux ou trois à Mbour on a de faire la même chose avec des compétences comme ni ma ko waxee locales xam nañ les niches xam nañ fi ñu war a jëlee vraiment des moins xam nañ également comment restructurer la gestion municipale pour que pour qu'il y plus de ressources dans l'investissement que dans le fonctionnement. Au niveau international également, on a des, relations, on a des partenaires. Il a une diaspora extrêmement active au niveau euh, de, de l'Europe, au niveau des États-Unis. Et ñoom li leen gën a intéressé mooy comment faire pour pouvoir pour pouvoir amener des partenaires en Mbour et contribuer à, son développement mais yenn saa fu ñuy jaar ak ku ñuy waxal donc nu ñu koy defee mooy nekk seen problème ñun saa bu ñëw dañuy profiter yenn saa yi si suñuy voyage à pour di dajale mbuurwaay yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di waxtaan ak ñoom di xool naka la ñu war a def pour que euh, vraiment liggéey bi ñu fa am mooy expertise ñoom bi ñu fa am relation yan fa am ñoom commune yi ñuy liggéeyee li ñuy fexe ba nuyu ay partenariat pour que mën a jëlee foofu li nga xam ne moom la soxla également di ko fi indi Donc ces deux levier la vont nous permettre, avec également les relations que nous avons au niveau de l'État, ak mhm. euh, ak président Macky Sall également li ñu xam si moom si cofeel jëmale ko si Mbour lu nekk def na ko fi fii à Mbour. Mhm. donc euh, lu nekk également yéene na ko Mbour bu ñu boolee ñetti leviers yooyu ñun jàpp nañu ne Mbour bu ñu ko jëloon trois ans rek. incha allah ku fi ko xam ne bu ngeen ko jëloon trois ans les axes prioritaires Macky Sall dafa cinq 5 cinq hmm. euh, les trois programmes les cinq accès yow les axes prioritaires du développement de Mbour fan la tegu. axe prioritaire euh, actuellement mooy refaire le système éducatif ñu on travaille pas pour les prochaines élections wala les prochaines échéances on travaille pour la prochaine génération. boo hmm. bëggee travailler pour la prochaine génération nag da ngaa war a investir. beaucoup dans l'éducation et dans la formation ñun foofu nag lañ bëgg gën a insister mooy fexe ba aéroport bi buñ soxlaa ay compétences techniques mbuur mën leen a abondé au niveau fii ñu nekk ni station bi euh, touristique bi mm-hmm. buñ soxlaawee des des des des des personnels techniques mbuur mën ko abondé bu euh, les mines au niveau de Mbour y a beaucoup de d'activités minières ñu man leen abonder au niveau de de la pêche le code ak euh, toutes les activités connexes à la pêche yooyu tamit ñu mën a am vraiment des des jeunes valabre yu mën a abonder donc formation éducation mooy une priorité parce que comme ni ma ko waxee ñun on ne travaille pas pour les prochaines échéances mais on travaille pour la prochaine génération. pour que ñu mën a am xam-xam boobu nag ak njàng mi dafay laaj tamit ñu am santé santé bu wóor. Mbour boo gisee axe bi c'est une c'est un axe bu accidentogène il y a beaucoup de la route wax nga ko léegi route yi nu mu demee ak nangam nangam malgré tous les efforts yi président Macky Sall def ak l'autoroute à péage bi traversé dem au niveau interne Promoville qui intervient mais c'est une route accidentogène il faut nag un système sanitaire qui puisse euh, gérer prendre en charge ces et à Mbour c'est une ville euh, peuplée également que toutes les euh, pathologies mu mën a am des spécialistes yu ko mën a gérer fii au niveau donc le système sanitaire euh, attire vraiment notre attention au plus haut chef beneen bi ci des nag mooy euh, koom-koom bi koom-koom bi li nga xam ne moom la Mbour am si ressource ñu fexe ba développer ko au bénéfice de Mbour au bénéfice du du, du Sénégal euh, loolu dafa am lu koy accompagner les les les activités de soutien mooy il faut des voiries partout fu 30 mètres nekk nga tëral fa tali fu am tali am nga am fa éclairage bu baax fu éclairage am ah, nga def fa système d' assainissement bu baax boo xam ne ndox mi dina xam fu muy démarrer ak fu muy dem loolu bu amee rek defe naa ne Mbour déjà si euh, premier cinq ans yu jëkk yi wala trois ans yu jëkk yi waa mbuur dinañ xam ne kat euh, gestion municipale mën na jële fii dëkk yóbbu ko feneen euh, si si lu ñu jàpp si weewu bëy bi ñu bi ñuy laaj ñu bari ñoo xam ni que Euh, sa candidature koy di étudier dañu jàpp ni que ni dafa mel na y a un fil direct conducteur entre le président Macky Sall ak yow en terme de rigueur dans la gestion. ñu bari foofu lañ la ragalee parce que dañ naan euh, dañu nekk si dëkk boo xam ni l'argent ne circule pas xaalis dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey mais Cheikh Issa c'est un homme de rigueur bu nekkee maire du jox suuf koo xam ni que ni euh, mérité wu ko la corruption ne pourra pas marcher. les affaires c'est pas son affaire mhm. lui c'est la gestion transparente est-ce que côté boobu ils ont ils ont raison d'avoir peur ou bien da ngay rassurer tous les partenaires comme quoi tout se fera dans les règles de l'art parce que depuis nga dugg dans l'administration ba léegi noonu ngay fonctionner waaw xam ga président Macky Sall moom sa dëgg-dëgg kuy roy si moom mënoo def lu dul euh, une rigoureuse parce que moom loolu la gëm une gestion sobre et rigoureuse même si moom sa boo ko gisee nu muy doxee nu muy waxee administration ni muy fonctionner euh, rapport am ak euh, les autorités religieuses les autorités coutumières ay xaritam ay waa partem donc sobriété boobu toujours da nga koy da nga koy ak rigueur bi rigueur bi euh, da da nga koy percevoir très rapidement contact boo ngay jëkk am ak président Macky Sall loolu ngay jëkk gis ñun nag ñoom dañ koo jël def ko comme modèle def ko comme référence bu buñ ko jëlee def ko comme modèle comme référence mënuñu fexe mënuñu doxee nu dul moom ni muy doxee mooy déjà yar bi bu ñuy wax toujours ñu jéem wax nu mu gën a rafet rafete mooy déjà bu ñuy engagé wu boo gisee yenn saa yi président Macky Sall bu euh, rencontré des syndicats ak yooyu ni muy waxee mooy du engagé wu si loo xam ne mënu ko du engagé wu si loo xam ne décidé wul def ko ba yenn saa yi comme nit ñi fii Sénégal dañoo tàmm maslaha yenn saa yi ñu xaw ko si jàmm lay demee noonu mais ñun tamit on fait la même chose man duma engagé wu si loo xam ne manuma ko récemment on a eu au niveau de Mbour fii un responsable politique yoo xam ne boo demee dëkkam bi nga xam ne moom mooy maire bi stade ba ñax yi xaw nañ toll ne fleur yi cest à kenn mënu fa fubal correctement bu ñëwee si benn state boo xam ne stade euh, départemental wala national ne dina ko defar xam nga yooyu façon boobu ñun mhm. Cheikh Issa Sall du def noonu président Macky Sall du def noonu lu mu mënul wax du ko def lu mu décidé wul du ko du ko du si engagé wu ñun tamit au niveau de la municipalité bi lu ñu wax rek xam nañ fu ñu ko teg lu ñu digg rek xam na nu ñuy fexee ba defal ko nit ñi ku ñuy sollicité si loo xam ne nag mënuñu ko am nañ avec politesse bi mu laaj ak courtoisie bi mu laaj possibilité wax na ne sëñ bi kat lii kat moom mënuñu ko waaye waaye dinañ si bàyyi xel ba yàlla bu ñu mayee bés possibilité def ko ñu def ko donc taxawaay boobu euh, di maanaam dañ ko jëlee rek si président Macky Sall bi nga xam ne moom mooy suñu référence noonu lay doxee léegi nag ay affaire chasse aux sorcières ak yooyu loolu vraiment nekkul si ñun parce que tamit bu dara bu lépp weesoo nous sommes des sénégalais sénégalais dafa am nu mu mel te fii ñëpp mbokk lañ buur ñëpp mbokk lañ ñaar ñoo fi tàpp rek am na lu ñu bokk donc suuf nag moom man dama koo ragal déjà suuf dama koo ragal donc du ma si dugg si jamais si mbiru suuf loo xam ne nii naka si dul noonu la suuf si pour Mbour la suuf si pour Sénégal la lépp lu ñu ciy def ce sera exclusivement au bénéfice des Mbourois et au bénéfice du Sénégal pour développer Mbour mais ce ne sera jamais l'objet d'appropriation privée pour que xañ ke nit ñi wala pour sa pour sa propre enrichissement donc loolu moom vraiment ñun suñuy réflexion sax suñuy projection sax wàllu suuf presque euh, nekkatu fi parce que mbuur si boppam amatul suuf suuf bi yëpp jaay nañ ko suuf bi yëpp morcelé nañ ko suuf bi yëpp def na lu objet de de spéculation donc li nga xam ne si la ñuy réfléchir c' est des stratégies de mobilisation de ressources c' est comment euh, bénéficier au maximum de la coopération décentralisée comment utiliser nos relations à l' extérieur comment faire intervenir la diaspora comment euh, faire pour que au niveau central le président Macky Sall avec volonté bi mu am yëpp engagement bi mu am yëpp jël euh, la la décentralisation avec l'acte 3 de la décentralisation jël ko def ko comme un levier principal du plan Sénégal émergent ñun nañu la ñuy duggee si si si borom ndoll boobu pour xëcc lu bëri indi ko nguur si stratégie yooyu lañu nekk mais pas si wu ay jaay suuf ay joxe suuf wala ay topp ñi nga xam ne nii yàlla defoon na xëy na ñu dugg si yu demee noonu. Euh, euh, Cheikh Issa donc euh, Sall président du mouvement AMDEM avec Agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour directeur général de l'ADM on a parlé de plusieurs points mais euh, euh, Cheikh Issa boo nekkee au service des Mbourois daf si am euh, côté boo xam ni dafa jaaxal ñu bare les jeunes d'habitude kuy dugg politique da nga leen di mobiliser les femmes idem def des actions spectaculaires médiatiques mais na si euh, côté bi nga xam ne bi nga fa duggee ça a surpris beaucoup de gens je vous parlais de cette contribution assez significative lors de la construction de la grande mosquée de Mbour euh, AI le troisième âge la religion quand même bi nga duggee foofu vu sa âge ça a surpris beaucoup de gens euh, c'est des gens qui comptent ouais énormément nous sommes des croyants euh, nit ñi dañuy liggéey pour fii àdduna mais dañuy liggéey également pour pour àllaaxira beneen bi mooy ñun bokk nañ si ñi jàpp ne stabilité yu dëkk bi le monde religieux muy musulman comme chrétien dañoo bokk si ñi nga xam ne ñoom ñoo téye Sénégal ba du jeng mën na dégg lu nekk mais du jeng donc ñooñu il faut ñu bàyyi leen beneen bi si topp mooy euh, dañu wax ne ñun on veut travailler pour la prochaine génération doo ko def rek si wàllu école bi école euh, française wala yu demee noonu mais dañuy war a bàyyi xel ne tamit au niveau des daara au niveau des daara y a un système éducatif très efficace bu nekk foofu boo xam ne de yenn saa yi ñu xaw leen fàtte tuuti moo tax ñun on est en collaboration avec tous les tous les sëriñ daara du hmm. département même concours de récital de Coran yi am fi à Mbour ñun koy organiser ak ñoom ñoo ciy jàppale ñoo leen accompagner. bu ñu waree jógee Mbour pour dem ay Thiès wala jógee Mbour dem Dakar ñoo leen di accompagner euh, bu ñu songee toujours lu am solo mooy élection yi wala demee noonu dañuy oo sëriñu daara imaam yëpp ñu def ay wàcc kaamil def ay ñaan pour que Sénégal jàmm am fi au niveau de l'église également saa bu ñu amee ay événements yu ñu mën a yu ñu war a recevoir euh, vraiment les chrétiens de des quatre coins du monde wala du Sénégal ñun da leen accompagner nettoyer leen église beeg jàngu beek yooy yëpp ba pare vraiment ànd ak ñoom si bés bi Popenguine dañuy accompagner également les les pèlerins Pâques Noël Koor Kori Tabaski yooyu yëpp dañu leen accompagner parce que gis nga le l' aspect religieux est extrêmement important pour les Sénégalais mënoo ne da ngay nekk ci seen wet mënoo yëkkati sa loxo nga waat nga ne fépp fu mbuur waa nekk ci lu baax bu geesoo dina ma gis ba pare euh, ñu nekk ci lu mel noonu wàllu diine bi nga di leen seetaan jumaa yi également à chaque fois que ñu def un appel à contribution ñun au niveau du mouvement dinañ def benn cotisation ku nekk indi li nga am ñii saaku ciment ñii xaalis ñii euh, leneen ak leneen ñii suuf ñii feer ñii xeer ñu dajale lépp yóbbu ko pour que vraiment œuvre yooyu nga xam ne euh, après ñun ñëpp ñoo koy utiliser. mu mën a ñu mën mais mais, mais il se dit que il se dit que euh, ce que vous cachez la boîte secrète c'est après ce diplôme en ce DS en intelligence économique en stratégie. que les jeunes voulaient réserver quelque chose de spécial avec euh, ces nouveaux métiers qu'offre euh, le numérique. c'est ça. <laughs> mooy ça vous voulez pas en parler d'habitude. mooy mooy li may wax rek gis nga euh, président Macky Sall euh, na naka nit ñi xoolaat bu baax nañ ko bàyyiwaat xel bu baax nañ ko étudier waat nañ ko nañ ko nañ ko jàngaat nañ ko jàngaat dafa nekk à l'avance sur sur ñun ñii ñëpp ci lu sore sore sore sore sore le numérique wax naa sànq le culturel jigéen président Macky Sall fi mu ko teg yi mu si yi mu ci yi mu ciy def mais le numérique également le numérique président Macky Sall li mu ciy def avec les NO yi fii avec euh, actuellement euh, band yeeg yu kenn c'est-à-dire tous les investissements les infrastructures si numérique bi xam ne léegi yóbbu na ko fépp ci Sénégal lépp fépp ci Sénégal utiliser le numérique la pour euh, développer Sénégal pour que lu ñu doon def fast bi li ko gën a rendre possible c'est la place du numérique dans la gestion actuellement publique mmh. donc lu mel noonu tamit ñun dañ ko war a am fii au niveau de Mbour avec des points yoo xam ne ku fa toog di nga mën a utiliser le numérique au maximum pour sa activité économique pour sa activité de recherche pour sa njàng pour sa leneen loo nga xam ne nii si moom nga bëgg Euh, jeunes yi également ku nekk xam na ils sont versés vraiment vers les nouvelles technologies vers le numérique mais ñooñu il faut les encadrer fexe ba orienter seen passion boobu si lu gën a baax parce que tamit le numérique tout n'est pas tout n'est pas bon si numérique tout n'est pas bon dans les nouvelles technologies mais il faut nga canaliser énergie boobu ak passion wu jeunesse boobu vers le développement économie et social il y a des pays Singapour boo demee Singapour boo demee euh, en en Inde mooy exemple yi ñu gën a jege ñun boo fa demee di nga gis ne avec le numérique mais un peut développer des des villes extrêmement euh, importantes yoo xam ne nii dafay abonder ci PIB wu dëkk bi d'une manière extraordinaire te l'investissement n'est pas très lourd ne pas très lourd yàlla may nañu investissement bu njëkk bi mooy xam-xam. ci hmm. xale boo fi jëm waxtaanal tuuti rek di nga desale ci moom. vraiment un talent énorme boobu nag il faut ñu encadrer ko accompagner ko donc le numérique fait partie des des leviers des leviers yi nga xam ne dañ ko utiliser bu baax même dans la pêche même dans la pêche euh, exactement. pour localiser les quartiers de pêche les plus poissonneux mmh. pour euh, sécurité maritime bi pour yeneen a yeneen loolu yëpp on est en train de réfléchir sur le numérique comment en faire un levier de développement local puissant Euh, euh, Cheikh Issa Sall, euh, on vous taxe d'être très rigoureux. moi, je dirais plutôt pondéré. mais confidence pour confidence de quelqu'un qui vous connaît bien. quand vous voyez des personnes vulnérables, les handicapés, les SDF, vous avez mal. Une fois, vous vous êtes dit, le jour où moi je serai maire de Mbour, lii dina fi dañ ñii di talal loxo di fanaan si mbedd yi kenn taxawu leen Euh, nekk na loo xam ne que ni bu ma ko mënul dindi tey tey tey je n'allais pas du tout hésiter est-ce que li nga euh, nekkoon secrétaire général à la délégation à la solidarité nationale moom moo éveillé loolu si yow wala c'est juste du vécu euh, c'est une sensibilité purement humaine c'est de l'humanisme moom moo la poussé si loolu. waaw loolu ñaar yi la euh, dañoo juddoo si benn quartier bu tudd Tefes quartier boobu quartier mool la quartier Lébu la donc Lébu xam nga dañuy dundee. Euh, lébu li ma am man waa quartier bi yëpp ñoo ko moom li ma man waa quartier bi ñoo ko moom ñun bëri si ñun ñoo xam ne seen ngénte euh, njaaylu moo ko financé njaaylu mooy euh, boo waree am benn activité boo xam ne moom ngay def quartier bi yëpp ñooy tëmbal Sénégal dem nappi bu ñëwee recette bi dañu ciy génne dépense rek jël recette bi yëpp jox ko ki nga xam ne moom moom activité boobu donc la solidarité dafa bokk si ñun dafa bokk si loo xam ne dañ koo dunde màgg ko ba léegi moo tax bëgguñu gis koo xam ne nii dafay nekk si ay difficultés loolu dal ma man moo dal tous les responsables question sont dans notre mouvement moo dal tous les mbuur jàpp naa ne sénégalais yu baax yëpp moo leen dal mooy sénégal dafa am yërmande si moromu sénégal dañuy jàppalante boo demee si kër yi amul kenn kuy togg pour moom ak waa këramam rek toujours am na da ngay togg pour en pensant à ku mën a ñëw après koo mën a dimbali après ki si wet gi nga xam ne war nga ko yóbbul bool war yu demee noonu donc loolu si ñun ñëpp la nekk mais beneen bi nag mooy sama passage délégation général kooku tamit am na si effet mais avant passage bi le programme yoonu yokkute bi nga xam ne président Macky Sall moom moo ko bind bi mu defee mille kilomètres au niveau du Sénégal dugg fu nekk jaar si mbaar yi jaar si quartier yi si village yi waxtaan ak nit ñi boo gisee programme bi li ko traversé première phrase ba dernière phrase c'est la solidarité c'est l'équité boo gisee léegi ñu créé sax benn ministère de l'équité territoriale équité euh, sociale ak yu demee noonu président Macky Sall dafa bàyyi xel loolu te man yoonu yokkute dafa nekkoon sama livre de chevet cest à di chaque jour dama ko doon ubbi di xool yàlla dimbali ma tamit bi alternance bi amee rek ñu def ma secrétaire général protection sociale solidarité nationale ñuy dugaat si àll bi di def ay enquêtes ma sama sama mag Mansour Faye ñuy def ay études di def ay enquêtes nga xool ne Sénégal Et ça, c'est un principe, c'est valable partout. Entre des faibles, le levier le plus important, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Il faut que ñu apprenons, il faut que xel baillons. ñun tamit mbuur bi ñuy yëkkatee suñu loxo pour dugg si mbir mi ñu nekk muy mouvement bi dañ ne woon fépp fois mbuur nekk am soxla rek bu gëstoo ñu gis fépp fois mbuur nekk def lu baax bu gëstoo dinañu gis moo tax lu social est également très important dans ce que nous yenn saa yi nag duñ duñ duñ ci publicité duñ si politique duñ si Facebook duñ ko def dara dañuy dem jël ay L200 dajale suñuy ceeb wala dajale suñuy kii mu ngo la dignité de l'autre dugg si biir quartier yi gis ay délégué de quartier wala ay imam wala dugg si ay kër directement yoo xam ne xam nañ situation ba fa nekk ñu koy gérer te kenn du yëg kenn du teen loolu tamit vraiment euh, si ñun la mais également comme ni ma la ko waxee rek programme président Macky Sall nit ñi di xool président Macky si boppam doxalinam doxalinu soxnaam Mariam fay Sall naka nit ñi di xool na nit ñi di xool lan moo ko lan moo ko lal lan mooy base bi lan mooy soubassement bi bu ko defee dañ ko tax ñu gën ko comprendre surtout ñun ñi nga xam ne dañoo fas yéene nekk ci ginnaawam ñuy man di teg tànk fi muy teg tànk si lu baax si luy jëmale dëkk bi kanam et si luy jàppale population yi. change ça la politique elle est extrêmement difficile mais elle est passionnante. te jàpp naa ne nit mën na ci liggéey pour àdduna mën na ci liggéey pour jaamu si yàlla mën na ci jaamu yàlla chaque jour actuellement à Mbour loolu ñun loolu moo ñu ci parce que parce que ñu la xam nañ ni sa sa sa cursus sa tempérament euh, àndul ak politique mënoon nga toog euh, tranquillement def sa sa carrière gravir les échelons euh, un poste ministériel leneen ak yeneen fu la président wóolu teg la foofu soxla woo woon def politique ñu bari ñu yàpp ni Cheikh Issa Euh, tout ce qu'il a amassé durant plusieurs années de carrière moom la nekk di dilapider nii mais Mbour le vaut votre votre votre ville. Euh, yaqin gi ma am yaqin bi mooy yëg-yëg bi ma am. si ne ñun ñëpp buñ booloo ñun waa Mbour yi joxante loxo man nañ jëlee mbuur fii mu nekk yóbbu ko si si situation bu gën yaqin googu su ma ko toog waalee xool sama bopp rek sama situation personnel ak sama famille rek pour bañ a dugg si politique. du mu nekk Cheikh Issa Sall bi may gis toujours ci seetu bi jàpp ne kooku mooy mooy Cheikh Issa Sall moo tax j'ai préféré sacrifier lépp sama jot sama temps man ak ñi ma àndal du man rek. Hmm. y a beaucoup de cadre mbuurwaa yoo xam ne ñu ngi woon seen tranquille seen coin mais après ils ont décidé de sacrifier leur vie. entre guillemets c'est pour essayer de se mettre à la disposition des mbuurwaa metti na comme ni ma ko waxee mais am na lu ci lu ci neex. boo xoolee ne am na ay ay kilifa yu nekk si dëkk bi yoo xam ni du ñu tëj seen ñaan te dugaluñ la si. Hmm. da ngay ñëw sa kër ñu ne la famille tel léegi lañ fi jóge dañ doon wàcc kaameel pour yow def ko gratuitement dem seen yoon di la ñaanal su crois que ne serait-ce que loolu reconnaissance boobu rek jar na sacrifice yi nekk di def yëpp. beneen bi mooy euh, ñi nga xam ne ñooy sacrifié ko seen dëkk doñ ko def ba ñu juddoogul ñun ba léegi ñooñu tamit waruñ ñoo gën. Hmm. ñu ñoo gën cest a dire le président Macky Sall effort yi muy def yëpp ñarawul nangam nangam keneen ak keneen euh, comme ni ko ñi ko jiitu defe woon comme ñi ko yeneen yi nit dans leur localité di defee Mbour également war na am ay doomam yoo xam ne dañuy taxaw pour que Mbour euh, mën a jege situation bi dem surtout que nag wax nañ ne ñun liggéeyaluñu élection yi di ñëw on travaille pour la prochaine génération di jàpp nañ ne mbuur qui est deuxième centre sportif du Sénégal. Mm. équipe nationale dans cinq ans normalement Mbour war na fa am pour cent yooyu la ñu nekk liggéey lu euh, roi des arènes Bombardier nekk mu ngi fi donc euh, xëy na am na am na am na lu fi jaar ci diggante bi mais bëgg nañ dans dans quelques mois mu recouvrer waat son statut de roi des arènes bu paree tamit bëgg nañ ay mbuur waa jot ko on trois équipes. si ligue professionnelle bi ligue euh, en tout cas ligue bi am na ñeneen ñu nekk euh, ligue 2 donc yooyu lañ bugg accompagner te ñi nga xam ne ñu ngi si nekk di sacrifié wu boobu ba tey waruñ ñoo gën parce que gënuñ ñoo bëgg mboor loolu rek moo tax vraiment ñu fàttasi lépp ñu bàyyi lépp ñu fos yeneen nag sacrifié sunu bopp sacrifié sunu sunu am-am ak sunu lépp pour mettre ça à la disposition des Mbourois pour que Mbour dem ci kan trois minutes pour terminer Cheikh Issa. Euh, candidat déclaré à la mairie de Mbour. waaw euh, à l'issue d'une assemblée générale de notre mouvement. Euh, loolu depuis kooru daaw ba vraiment si lañ décidé ne dinañ bokk si ñuy tàllal suñu loxo pour que bu ñu joxee dëkk bi ñu yóbbu ko fi nga xam ne fa lañ ko bugg yëpp donc on a on est dans ñu ngi koy implémenter on dans toutes les cellules on a des cellules dans tous les quartiers ñu ngi koy dox ñu ngi koy waxee. ñu ngi defar également un programme bu taxaw boo xam ne euh, xam nañ fi ñu jëlee financement yi xam nañ ñu koy defee lu nekk fii si Mbour bu nekk xam nañ lan moo fa war a nekk xam nañ également les besoins des Mbourois xam nañ leurs préoccupations donc on est prêt actuellement pour briguer la mairie de Mbour et le département bu ko defee nag ñu mën a exécuter ces projets la qui son pour certains des projets communaux et pour d'autres des projets d'agglomération Et dans ce cadre-là, on est en relation avec beaucoup de leaders qui sont dans le département, des responsables, des DG, des ambition, des maires. Une ambition légitime, euh, mais que vous voulez saine. Parce que nous euh, avons au le maire de Mbourg est voué aux gémonies, euh, vous ne surfez pas sur ça. Vous ne non. parlez pas de questions non. personnelles. Non. Vous, vous avez votre vision. C'est ce que vous Non, nous, euh, déjà, nous kenn euh, sànq bi avant émission bi am na ñu may wax ne peut sa tempérament daal du tempérament politicien euh, mais tempérament politicien nag dëgg noonu la war a mel on doit mbuur soxla yi bëri na soxla bëri boo xam ne préoccupation bi tar na tar goo xam ne cest à am jotu di wax si ay personnes di sosal nit wala di ko jéem a buux si kàmb gi wala di def ay yenn affaire def naa ne loolu ku am jot bi mooy vraiment xamuloo préoccupation mbuur yi waaye nu mu nu mu nu mu taree actuellement waaw mbuur ni ñu soxlaay moom seen bopp actuellement ni ñu soxlaay seen dëkk bi développé ni ñu soxlaay gis seen bopp ci gestion bi euh, àgg na foo xam ne vraiment képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa loxo ne damaa bëgg a développer mbuur wala damaa bëgg bokk si ñuy développer mbuur war nga tal lu teneen lu dul di xastante wala di gaar waala wante wala yu demee noonu hmm. man fuñ ma invité si Sénégal fu am sama kàddu nekk su ma waxee au niveau national ba pare damay wax ci Mbour parce que tamit dox bala moo rafet da ngay teg benn tànk ba mu dëgër nga doog a yëkkati beneen bi teg mais invité la rajo wala télé pendant une heure de temps sa terroir ba nga dëkk juddoo fa yaroo fa màgg fa ñu jox la fa ay responsabilité doo wax lu ci jëm man loolu duma ko def moo tax Mbour d'abord après nag parce que loolu tamit la nit ki da ngay euh, président Macky Sall par exemple waaw sa force mooy lan ci ci Fatick ba mu juddoo ñëpp boolu ànd ak moom ak euh, le nord bi nga xam ne fa la soxee ko bugg bi mu defee lool nag ba nit ñi xam ne kii ku bugg boppam la ku bugg fa mu kii yoon la gis nga lu mu def Sénégal lépp lu mu lu Sénégal soxla li ko dalee Saint-Louis ba Cap Skirring président Macky Sall mu ngi si ñëpp gis nañ seen bopp si gestion mais li ko nit ñi gën a nawee mooy boo ko gisee di nga xam ne ku fier ci identité am la ku frère si fa mu jógee la ñun également comme ni ma ko waxee moom mooy suñu référence si moom la ñuy topp donc euh, dañuy bugg toujours euh, di dox si ni muy doxee moo tax mbuur daal euh, bëgg nañ bëgg nañ yàlla may ñu possibilité dans quelques années mu nekk situation boo xam ne bis boo fi ñëwati di def émission vraiment nga xam ne kat mbuur waaye jóg nañ doomu mbuur yi jóg nañ Merci à vous, euh, cher Issa donc directeur général de l'ADM et euh, candidat déclaré depuis pratiquement un an à la mairie de Mbour, président euh, du mouvement Amdem Agir euh, avec euh, Maki pour le développement de Mbour. J'aime bien sa phrase, son slogan, euh, plus profondes seront les racines, plus fort sera l'arbre et plus beaux seront les fruits. Il est carrément ancré dans son terroir, Mbour, ses valeurs culturelles, religieuses, culturelles et, et tout. Et il se bat pour euh, soutenir cette ville, impulser son développement. C'est toujours un plaisir de le rencontrer. Jox nañu dajeeg moom sur les grandes heures ce jour-là on a parlé que de l'ADM, c'est des techniques. Aujourd'hui on parlait politique fekk fi mu fi mu fekk baax euh, pour pouvoir euh, parler donc de ce mouvement-là am nga dem sa yoon donc pour que Mbour mën a dem en tout cas Cheikh Issa merci beaucoup. merci beaucoup ça toujours avec plaisir qu'on vous rencontrera. le plaisir est partagé et encore une fois félicitations. merci seen organe bi euh, sànq avant ñuy commencé ñu ngi leen doon jëw jëw bu rafet mooy vous êtes imbattable sur les directs. merci loolu vraiment euh, yal na ko yàlla gën a taxawal. amiin amiin merci beaucoup. mesdames et messieurs une petite pause et on revient pour la suite de la dernière partie. Euh, nous allons libérer Cheikh Issa Sall. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de rencontrer toujours des, des personnes techniques qui te parlent technique, qui te parlent vision, qui te parlent développement. Moi, nuit au passage toute la famille de toute la famille Barreau, mais mon camarade de promotion, euh, préfet de Mbour, euh, Sayer, qui vient d'être promu gouverneur de Kédougou. Euh, vous allez très très loin. mais quand vous êtes fonctionnaire, vous servez le pays. C'est tout à fait normal. Il faut toujours être euh, positif, être au service de, de son pays. Euh, c'est pour ça qu'on a été à l'école, c'est pour ça que nous sommes nés donc, dans ce Sénégal-là. Euh, dans un court instant, mesdames et messieurs, on vous retrouve pour la deuxième et dernière partie. voilà on se retrouve xam ngeen nag man am na ñoo xam bu ma leen di dalal Cheikh Issa man ak moom def nañu ba pare léegi nag moom ma dem nag si li ma mënee li ma mënee du miss dongama de dongama yi femme soxla Mariam Sila yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax a baax hmm? sant merci beaucoup ci daral bi ngeen ma dalal. yow Mariam moom liyaan la njool ca kaw. plantureuse waaw 1 mètre 85 pieds nus ba pare nag di œuvrer pour les jongama dem ubbi boutique tudde ko jongama defar ay produit jongama huile de dattier du désert bio alors euh, jongama. boutique la boo xam ni da nga ko ubbi ak say propre moyen di dem ba Kédougou Salémata di wër Sénégal di xool yu baax yi nga koy defar pour soxna yi mën nga ñu expliquer. Euh, donc delluwaat di wax asalaamaaleykum yéen téléspectateurs au 2STV donc euh, jongoma benn marque de produits cosmétiques pour góor pour jigéen tamit. Euh, pour jigéen mais tamit pour góor bu ñu créer. kon euh, bu baax a baax a baax c'est des produits entièrement naturels góor mën na ko jëfandikoo ma euh, jigéen mën na ko jëfandikoo xale bu ndaw tamit buy soo a judd mën na ko jëfandikoo. donc particularité jongo moom mooy dañuy liggéey ak ay jigéen yu bëree bëree bëree bëri ma de passage ma leen di remercier waale waa jigéenu Salemata franchement mille merci soutenir ngeen bu baax a baax moo ma fa sancee unité bi ba léegi changé woo leen benn yoon ci suñu collaboration ñuy liggéey Kédougou yëpp ak Salémata ndax ñoo ma dalal ba tax tey jii lii yëpp mën a nekk donc Salémata la ñuy liggéeyee bi di fa liggéeyee pëndaxubu yi di fa liggéeyee produit yu bëri yu ñuy transformé ensuite on a notre deuxième unité de production à Mbour c'est là-bas on a notre presse huile où on presse toutes ces huiles là que vous ici léegi nag après loolu dañoo amoon benn wàllu boo xam ne France lañ ko doon liggéeyee mooy maanaam produits cosmétiques finis gamme pour homme après la barbe et cetera loolu ak benn laboratoire bu nekk France ñu ko doon liggéey wante depuis quelque temps dañoo nekk décentralisé lépp indi ko Sénégal doomu sénégalais yi di ci bénéficié woo bu baax a baax looloo waral ñu dem ba tijji boutique pour gën a wan waa Sénégal euh, nekk seen suñu dëkk am na produit yu baax a baax. et que c'est dommage que ñuy jaay juste euh, à en euros ou euh, ailleurs à l'étranger donc dañoo bëgg vraiment suñu waa dëkk xam na la ñuy liggéey xam ne ay produits yu baax a baax a baax ñoo am Sénégal loolu moo waral le hasard n'existe pas vous êtes de Mbour jóge France ñibbisi dem Salémata région de Kédougou tey yàlla jëlee préfet wu Mbour yóbbu ko Kédougou. exactement et mardi je serai là-bas. <laughs> justement parce que préfet wu Salémata tamit dañ koo jëlee Salémata indi ko Thiès yóbbu benn préfet bu bees à Salémata et donc mardi incha allah su ma demee à Kédougou je dois passer voir le préfet de lex Sayer Ndao voilà qui est parti maintenant à ouais. Kédougou. Mhm. alors euh, euh, euh, xam nga nag man dama nañ ma baal rek. Modou mbay comprendre nga fu may waxee mais dama gis ñu bind huile de dattier du désert ba pare ñu def suuf huile vierge pur pressée à froid une huile vierge mooy lan mooy huile boo xam ne raxuñ ci dara par exemple mën nga def euh, ne da ngay jaay huile de bissap fekk ne huile boobu noonu da nga koo jël par exemple nga macéré ko ci fleur d'hibiscus pour mu xonq et cetera donc danga ngaa modifier huile bi mais buñ ne vierge pure mooy que raxuñ ko dara euh, àndu ci et nous on a euh, un presse huile qui a un système de refroidissement ce qui fait que toutes les graines sont refroidies euh, ne sortent pas brûlées au fait on chauffe pas donc c'est vraiment un système de pressage à froid ce qui fait que suñu huile day garder qualité yu baax yi mu am yëpp pour suñu yaram day des du kara du su fekkee da nga koo pressé ak lu tàng day wàññi degré wu quantité euh, vitamines yi et cetera ki ñi nekk ci huile bi dañuy wàññeeku donc ñu nag suñu huile ça sort intact c'est ce qu'on voulait dire. bëri qualité la ñu xamoon mais ma gis bisaab moringa euh, dace pratiquement plante bu nekk am na loo si jël pour defar si benn huile boo xam ni day naturel bio pour protéger euh, la peau de la femme noire mais surtout euh, rendre que plus belle aussi. c'est vrai donc euh, après karité tamit ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax par exemple suñu lait de corps bi boo ko jëlee c'est fait à base de beurre de karité. Okay. donc on a aussi crème visage pour booy tëdd pour jigéen ñi dañ ko def karité parce que karité day gën a day. yow yooyu bu baax a baax a baax a baax moo waral bii itam. <laughs> black and beautiful la daal. exactement. mais la clientèle d'habitude parce que ñu bare bu ñu gisee xam nga produit yi ñuy defaree fii. Mhm. Euh, merchandising bi mooy di poser parfois problème duñ ko def ci ay euh, emballage ay étui yu rafet comme ni ko tubaab yi di defee les grandes marques euh, d'habitude buñ ko gisee nii ñu bari dañuy douter est-ce que sax dëgg la. est-ce que jëluñu leneen def rek embouteillage bi fii est-ce que c'est pas fait pour une clientèle d'élite Non, pas vraiment. Nous, nos prix sont accessibles et abordables. Donc, euh, on a vraiment fait des prix pour euh, que le Sénégalais lambda puisse acheter, utiliser nos produits, pour que la personne qui a les moyens puisse l'utiliser, pour que le touriste aussi puisse l'utiliser. C'est vraiment des prix qui sont accessibles et abordables. C'est quoi, quoi l'éventail des prix Euh, par exemple, le beurre de karité, le plus petit pot, on le vend à 2900. Le plus petit pot est en verre, bien conditionné, bien filtré, c'est propre, c'est euh, un beurre de karité de qualité vraiment assez exceptionnelle. Donc, c'est vraiment la qualité premium qu'on vend aux clients. Donc, lu baax la ñuy jënd en même temps te lu baax foofu nga def si njëg bi. mais euh, donc on a vraiment des prix abordables 2900 nit ku nekk mën na ko génne. Mm. et et on peut les trouver partout. Parce que les points de distribution, c'est important. Je vois que vous avez le site euh, www.djongama.com. Ça veut dire que même la personne qui se trouve taille en Australie, à partir du site, euh, mën na leen joindre. Exactement. Nous, notre site est international. Vous pouvez acheter depuis la France, depuis Canada, depuis New York, de partout. De toutes les façons, on a des clients et on vend déjà. Et au niveau du Sénégal, on a des distributeurs à Dakar et le showroom est à Sali, à l'entrée de Sali, juste après le Super U sur la droite, collé à la boulangerie Épidorée. mais euh, attends. à la petite mais, boulangerie Épidorée parce qu'il y a deux boulangeries Épidorée à Saly. mais mais mais tout à l'heure ne nga ma que ni les hommes sont concernés ça s'appelle jongama mais il y a des produits yoo xam ni góor ñi mën nañu koy utiliser. exactement par exemple l'huile de sump bi nga yore nii. c'est une huile qui est réputée euh, pour tout ce qui est douleur tout ce qui est arthrose en même temps ça hydrate profondément la peau góor mën na ko jëriñoo tout comme jigéen mën na ko jëriñoo. parce que je vois appliquer sur le visage le corps et les cheveux en huile de bain. ou de massage, huile d'amande, de fruits, du dattier, du désert bio. Euh, et vous parlez de commerce équitable, ça veut dire que vous êtes déjà sur les si standards internationaux. Exactement. Donc, nous, on est labellisé bio par un organisme certificateur qui s'appelle Ecocer, qui est en France. Donc, c'est facile de dire bio. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui disent bio, mais qui ne savent même pas que pour vraiment pouvoir dire bio, il faut répondre à un cahier des charges, il faut... Euh être audité. Nous, les auditeurs viennent chaque année. Hein? Exactement. On a vraiment la traçabilité de A à Z de nos produits. Mm -hmm. C'est pas seulement vendre pour vendre. Et euh, les femmes de, qui m'entendent de Salemata ou de Kébémer ou de Kafrine, parce qu'on travaille pas seulement avec Salemata. L'huile de dattier du désert, par exemple, on travaille beaucoup avec un village qui s'appelle Ngiranen à, en Kébémer. On travaille aussi avec euh, Dar Diolo, plein de villages où il y a du soumpu. Donc on les a regroupés en groupement de femmes. Là, par exemple, actuellement, on est en pleine euh, collecte de graines de dattier du désert. Actuellement aussi, on est en pleine collecte de fleurs d'hibiscus bissap dans la région de Kaffrine, etc. sur nos propres champs de fleurs d'hibiscus bio où on travaille en partenariat avec des groupements de femmes. Donc, on a vraiment la traçabilité de A à Z de tous nos produits. C'est pas seulement du acheter et de revendre. Donc, donc, donc, donc c'est de la terre à la peau finalement. Exactement. Tout ce processus, bu fekkee dañ la certifié. dañ koy xool. fan fan lañ ko bayee fan lañ nan lañ ko lañ ko collecté euh, nan lañ ko emmagasiné nan lañ ko transporté bi mu ñëwee nan la ñu defee la fabrication. ba produit bi génn ñu mën ko teg au niveau des étals euh, des rayons tout ça. même l'étiquette est auditée. tout de A à Z. Il y a vraiment un processus de A à Z du produit. Le, le consommateur peut savoir quand est-ce que ça a été fabriqué, jusqu'à quand il peut l'utiliser, d'où ça, ça vient, etc. On a vraiment une traçabilité assez complète de tous nos produits. Vous dites que c'est des crèmes assouplissantes et réparatrices. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas que le côté euh, cosmétique, euh, il euh, y a autre chose derrière. C'est pas seulement le côté cosmétique parce que quand on fait des produits cosmétiques par exemple tels que baobab, quand on fait l'huile de baobab, avant de faire l'huile de baobab, on a d'abord la poudre de baobab. buy dañ koo xaw a ñàkkal tuuti solo suñu dëkk fekk ne buy produit bu baax a baax la buy baax na pour digestion baax na pour am euh, su ma ko mënoon a wax ci français moom a gënal. ayca ayca ayca defal <laughs> a plus de. calcium que le lait c'est sans lactose ni gluten te lactose ak gluten ñëpp mën nañoo d'accord que ne c'est pas un produit qui est très très bien pour euh, suñu wergu yaram donc baobab day gën a dundal day gën a dëgëral say yax da lay may force da lay may énergie produit bu baax la nga koy jël une à deux cuillères à café tous les matins def ko ci sa ndox wala nga def ko ci sa meew bi ngay naan wala nga def ko ci yaourt day joxe vraiment weeru yaram donc c'est des produits de bien-être on peut dire entre autres c'est pour ça le bien-être à Et euh, par exemple, si on prend Bissap, pareil, avant d'arriver à faire de l'eau micellaire avec de la fleur d'hibiscus ou de faire l'huile de fleur d'hibiscus, on a d'abord la fleur d'hibiscus tout court. Et la fleur d'hibiscus, ñëpp xam nañ ne qu'il y a beaucoup d'antioxydants dans la fleur d'hibiscus, que c'est très drainant, que c'est bon pour l'hypertension artérielle, que ça soigne beaucoup de choses. donc c'est pas seulement produit pour sa yaram rek parce que dañoo ne am na proverbe buy wax ne lépp loo xam ne rek yaa ngi koy diw sa yaram war na doon loo xam ne mën nga koo lekk sans danger et nous c'est ça qu'on propose donc c'est vraiment des produits qui ne sont pas du tout néfastes pour la santé pour la peau ça peut qu'améliorer parce qu'en fait je je je regarde ce produit Jongama sérum euh, sérum unifiant trio végétal baobab Christ camélia Mais ce, ce, qui est intéressant surtout, c'est la fin. On a pratiquement toutes les composantes du, du produit euh, avec l'organisme certificateur. Euh, et là, euh, surtout Hamni, c'est des clients intelligents, rationnels. Ils ont besoin de ces informations-là. Ça veut dire que ce rassure. produit il est exportable. Exactement. On est euh, présent dans plein de pharmacies en Europe. notamment à Paris surtout et dans le sud aussi où j'étais avant. Donc on vraiment présent dans beaucoup de pharmacies, euh, dans des euh, boutiques éthiques, ethniques euh, et on commence à entrer dans les supermarchés bio. Ça veut dire que femmes sénégalaises yi nga xam ne que ni surtout jamono yi ñu génn ak coow bi bare yépp ci ci xesal bi le retour les produits autochtones authentiques bio dafa nekk lu ñu war a prôner pour le bien-être de nos de nos sœurs sinon même du Sénégalais tout court puisque góor ñi tam dañ si bokk. exactement. y a toute une philosophie derrière cette histoire. Euh, oui parce que man je pense que j'arrive je je les comprends je les comprends pas parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut changer la couleur de sa peau je suis tellement contente d'être noire tous les jours je veux encore foncer un peu plus parce que Vous voilà. Vous n'avez pas le complexe d'être noire. Pas du tout je suis fière et très contente d'être noire su ma sañoon damay gën a ñuul que li ma ñuul nii. Parce qu'il n'y a pas plus beau que euh, <laughs> être noir, tout simplement. On me donne un coup, je ne vais pas rougir. Euh, je donne un exemple. Hein. Ma mère, elle va me tuer. Exemple, là, il Donc, tu vois, ma mère, nous aussi, nous c'est euh, day dereetal wala yaram bi dagg et parce que xeesal bu yàgg moo koy def. donc franchement. <laughs> bu excès mu añ. Donc franchement, Khaysal pour l'âne, franchement, je vois pas trop l'intérêt qu'il y a de se dépigmenter. Déjà, c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour la santé. C'est euh, ça sent pas bon, ça pue Khaysal. donc franchement je les invite après je comprends que c'est pas facile nga xeesoon jékki-jékki bëgg a ñuul kukk am ay taches am ay boutons mais y a des produits pour ça xeesal du loo xam ne da ngay xëy xëy rek dagg ko court couper court mais il faut euh, progressivement diminuer et progressivement alterner avec des produits sains des produits qui sont pas néfastes pour la peau et à force vous verrez que votre noirceur va revenir petit à petit mais honnêtement c'est pas facile je les comprends euh, ku képp koo xam ne xeesala goo woon ba fii nii li ma lay conseiller rek mooy bu ci mës a dugg parce que déjà économiquement parlant ça coûte cher ça sent mauvais c'est pas bon pour la peau et ñuul dara daax ko xam nga euh, Maham Silla euh, initiatrice promotrice de la marque Jongoma c'est bien de dire que c'est une marque euh, mais tey ñu bare dañu yaakaar ni que ni bon bu ñuy def bu ñuy def lii waaw <laughs> ñuy def lii peut-être jaay rek lañ si lañ lañ si xalaat mais y a une chaîne y des valeurs mais surtout aussi am na recherche euh, scientifique bu nekk derrière parce que foog nga xam produit bi maa ngi gis par exemple huile de moringa bio moringa dafa nekk loo xam ne dañ koy recommander fondamentalement donc aujourd'hui y a y a une équipe cachée boo xam ne tey ñu ngi lay seetaan c'est le moment aussi de les remercier. Exactement. Donc, euh, effectivement, derrière tout ça, il y a une équipe. Je ne suis pas seule, même si je suis la promotrice. Il y a une équipe euh, dynamique, vraiment très motivée, qui m'aide euh, tous les jours. Le travail se passe très, très bien. Tout d'abord, je commence par les groupements de femmes de Salemata, les groupements de femmes qui sont à Kébémer, Granen, tout ça, les groupements qui sont à Potou, parce qu'on fait d'autres produits qu'on qu n'a pas amenés ici. On remercie aussi euh, toute l'équipe de Mour du ma joxe tour parce que on est quand même très nombreux à travailler à Mbour mais yéen ñëpp xam ne ne yéen a ngi ci biir euh, franchement je donne pas de poste je donne pas de nom parce qu'on est assez nombreux mais en tout cas je remercie toute l'équipe de Diongoma l'équipe de Diongoma qui est à Salemata à l'unité de production tout comme l'équipe de Diongoma qui est à Mbour Je remercie aussi l'équipe qui est à Paris, les vendeuses de choc que j'ai, qui font tous les salons, les foires avec nous. Donc il y a une force de vente. Exactement. Je remercie tout le monde. Je remercie le laboratoire Cosmétosource qui euh, sont dans la partie recherche, innovation, etc. Honnêtement, je remercie tout le monde. Euh, euh, euh, c'est parti du Sénégal pour inonder le monde, conquérir le monde. Cette marque Diongama, euh, il faut faire la différence entre dianke jongoma. <laughs> et disquette. <laughs> parce que parce que bu ñu gisee jongoma ñu gis Marème Sylla dañu yaakaar ku am yaram la euh, bien menu mais bon bu ñu gisee koo xam ni euh, euh, miss la da nga naan bon xëy na c'est fait pour les jeunes filles ça c'est pas pour les jeunes filles. ah si c'est pour tout le monde si si donc muy maire muy muy ndaw. Euh, Comme je l'ai dit, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut s'en servir. C'est vraiment des produits de qualité euh, qui sont pour la plupart unisex. Par exemple, ce lait de corps... Euh, vous pouvez l'utiliser votre femme peut l'utiliser vos enfants peuvent l'utiliser parce que man bi ma ko gisee léegi léegi je vais pas faire la publicité bon ñu nekk sama gannaaw fële tey da ngeen ma koy baal quoi mais bi ma gisee par exemple emballage yu jongama le corps duo vital euh, duo végétal karité kamami euh, j'ai pensé au professeur euh, Françoise Godon bidon yu mel nii lay def dans les rayons nit ñi di ko njëkkante or chez nous au Sénégal on est en train de faire mieux aujourd'hui avec des produits véritablement bio yoo xam ni que ni amul benn risque pour la personne qui l'utilise c'est que côté boobu itam yéen marketing boobu foog ngeen def que euh, sensibilisation nit ñi xam ni chez nous euh, pratiquement chaque arbre am na benn njëriñ bu muy indil nit ki buñ ko travailler correctement et euh, je vais rebondir sur ça en disant que sachant de marques européennes la base de tous leurs produits cosmétiques c'est quasiment le karité l'huile de baobab c'est des produits Quand j'étais au Mali, c'est ce que j'ai découvert. Ils venaient acheter les amandes de karité, amandines de karité, pour faire euh, leur végébaume. J'ai dit, mais nous, finalement, euh, chaîne bi rek la ñu maîtriser wul mais la technique peut être là et si on veut si on le veut on le fera. et c'est ce que vous êtes en train de faire. exactement. et la concurrence elle est terrible Mariam. Oui, oui, oui, mais c'est bien la concurrence. Man, euh, ça ne me fait pas peur la concurrence. Je pense que c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Ça permet que, par exemple, s'il y a de la concurrence, par exemple, dans la région de Kédougou, ça permet que jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi di liggéey di daan seen doole si wàllu karité day tax ñu gën a am liggéey donc c'est bien économiquement parlant c'est bien qu'il y ait de la concurrence te concurrence day tax euh, kenn ku nekk di essayer de faire de son mieux donc c'est bien. Euh, euh, ma bëgg xam léegi léegi je parlais du du. euh, du site internet jongama.com mais je veux pas qu'à l'issue de l'émission parce que man sama numéro WhatsApp 77 360 07 am na ñu lay woonaan la comme bu ma fi defee émission Ndiasse naan ma sëriñ bi man man du ma sëriñ bi tey je veux pas aussi qu'on m'appelle pour me dire ana produit bi produit bi kii moo ko moom moom moo koy defar moom moo koy commercialiser Mariam Sylla il faut que les gens sachent où vous trouvez comment vous joindre c'est pas que le site internet je vais donner le numéro numéro <laughs> numéro 2 de Jongoma. waaw <laughs> waaw parce que boo joxee sa bos moom am na ñoo xam ne que ni bu bu ñu wootee du ñu laajte produit borom produit la ñuy seet loolu lay bañ te xam naa ni sama technicien ñi ngi may xool di ma xool ay bëtu célibataire la wala marié célibataire la pour yéen Sénégalais yi ak ñi nekk bitim réew marié et les célibataires. donc yéen a jongama Jongoma célibataire peur à prendre. en tout cas la marque est là. Euh... Donc, je vais vous donner un numéro de téléphone portable qui a un WhatsApp sur lequel vous pouvez à tout moment joindre quelqu'un de, de l'équipe de Diongoma qui ouais. saura vous renseigner, euh, vous conseiller sur les produits aussi. Donc, c'est le, pour ceux qui sont à l'étranger, 00221

mën na jaaraat sur ces produits bio pour revenir ndànk-ndànk. exactement ce sera long mais ça peut revenir. exactement moi j'ai euh, j'ai rencontré une dame avant-hier qui est béninoise qui est même pas sénégalaise qui euh, quand on voit son teint on peut même pas deviner qu'avant elle se dépigmentait et pourtant elle se dépigmentait avant. Mm -hmm. Elle m'a dit que c'est le beurre de karité surtout qui l'a vraiment aidé à restructurer sa peau. Donc euh, nous on a un sérum unifiant qui est pas mal pour visage ça permet vraiment d'unifier. Oui, c'est ça. sérum unifiant trio végétal baobab Chris camélia. oui c'est vraiment ça permet voilà. ça permet vraiment de d'unifier le teint. Mm -hmm. et après on a d'autres produits qu'on peut proposer il faut juste il euh, n'y a pas de secret au fait pour le visage il faut bien nettoyer déjà. donc vous faites du conseil aussi. oui on fait aussi du conseil parce que tous les produits on sait. Euh, on, sait, on, on, conseille au fait, on te donne des produits qui sont adaptés à ta type de peau. Par exemple, une femme qui vient avec plein de boutons, on sait que l'huile de Nîmes, Nîmes que vous voyez partout, ouais, ouais. Nîmes c'est génial pour les boutons. Il faut, ah, par contre, ça sent très très fort. Il faut juste en mettre sur les parties qui sont sur les zones qui sont concernées avec un coton. Honnêtement, au bout de quelques jours, on a un résultat. Après, nous, on a un savon hibiscus euh, carité qui est exfoliant, qui est très bien pour les boutons aussi. Donc, ce qu'on fait, on te propose une gamme. À partir de là, de quoi nettoyer, de quoi hydrater et de quoi de quoi vraiment bien régénérer les tissus cellulaires parce que c'est bien de traiter quelque chose mais pour le visage jigéen ñi seen problème mooy le vieillissement de la peau donc on a aussi un sérum qui est pour ça on a un ah. sérum anti-âge qui est pas là Mariam ku màgget màgget nga <laughs> ku jël lu bari de sa tuuti da ngay bàyyi terrain bi ak ñeneen ñi mën a fubal ñu ñëw fubal non d'accord ma jigéen du màgget. non non jigéen du màgget il faut juste s'entretenir. bu la neexee léegi euh, góor ñi ñoom y a des produits vraiment spécifiques aux hommes. oui on a vraiment une gamme pour la barbe pour les hommes malheureusement on n'a pas encore commencé à le commercialiser au Sénégal on a déjà commencé en France ça a beaucoup de succès. on est en train de faire un test à la boutique euh, au showroom qu'on a ouvert à Saly pour voir si vraiment les hommes sénégalais aussi ont cette culture là de prendre soin de de prendre soin de leur barbe etc. Et d'après ce que je vois. Mariam, mais... <laughs> Est-ce que les gens sénégalais pas fini ma phrase. J'ai dit d'après ce de... que j'ai vu, oui. <laughs> Est-ce que les hommes sénégalais ont cette culture de s'occuper de leur barbe de... bu ñëw ah. dañuy watu <laughs> sama producteur bi ma àndal tey lamp moom moom day bàyyi barbe bu mu génn mais daf koy pegee quand même. l'essentiel mooy. Euh, na non mais je, je c'est, c'est pas. non c'est que c'est pas péjoratif. je voilà, sais voilà c'est juste que là en ce moment c'est vraiment la mode en Europe tout le monde ah. a la barbe il y a des huiles de barbe des shampoings à ah, barbe. il y a une huile pour la barbe. exactement sans pourtant nga nga wattu quoi mais bàyyi ko noonu. di ko toppatoo pour euh, pour faire pousser mais de toutes les façons on a fait ah. une gamme pour la barbe mais l'huile de baobab dara gënu ko pour la barbe. parce ah, que c'est pas grave moi je vous donne euh, Lamp Gueye moom. mën na nekk kii ñu testé ko si moom. exactement parce que l'huile de baobab n'est pas gras ça n'a quasiment pas d'odeur c'est de suite absorbé ça va donner une légère brillance à la barbe et ça va okay. l'hydrater donc huile bu baax la pour barbe aussi. merci beaucoup à vous euh, Mariam euh, Silla Silla Makhtar ça on se retrouve donc de la marque Jongoma. Euh, muy des huiles euh, bio parce que man xaw ma différence entre bio ak naturel mais des huiles euh, bio. mu ñibbi si Sénégal créé ko avec des unions villageoises des femmes yu nekk à l'intérieur wax na fi l'équipe Potou wax na Kébémer wax na Salémata dans la région de Kédougou fu si nekk am nag une équipe de recherche ñooñu dab te doo leen di gis genre laboratoire lay doon garab bu nekk lan la mën a indi lan la mën a faj lan la mën a apporter nit ki donc ñu jël ko travailler que j'ai bien aimé bi mu ne dañoo am euh, processus de refroidissement donc du produit avant ñu koy mettre en bouteille ba mën que Euh, yóbbu au niveau des rayons et surtout le merchandising moi ça ça j'aime bien ce merchandising c'est essentiel euh, on a énormément de bons produits mais souvent euh, du ñu def merchandising bi ba nga xam nit ki dina ko mën a bëgg parce que am na ñoo xam ne étiquetage bi rek ça leur coûte tellement cher qu'elles préfèrent je parle des femmes yi nekk si union yooyu déchanter te kon du jox valeur produit bi ni ñu ko war a jaay du ñu donc vraiment à ce niveau chapeau félicitations bonne suite nous allons porter le message gratuitement Moi, je voulais <laughs> juste venir sur la différence entre bio et naturel. Ouais. En fait, un produit bio, c'est un produit, euh, comme son nom le dit, issu de l'agriculture euh, ou de la cueillette biologique. Ça veut okay. dire c'est un produit, par exemple, pour le bissap, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits chimiques ni de produits industriels sur nos champs de fleurs d'hibiscus bio. loolu bu ci amee rek doonatul bio donc kii di produit chimique produit industriel kii di euh, engrais et cetera engrais ñu bëri xam nañ ne y a des engrais qui sont très néfastes qui sont pour la santé donc loolu mooy différence bisaab naturel bisaab la mais euh, bisaab biologique ça veut dire kenn bàyyi ko ak engrais amul pesticide. yow da ngay dugg si di xool yooyu. ah bien sûr. damay sax wittandoo bisaab ak maire yi j'adore ça je préfère être sur le terrain que d'être derrière mon bureau ah c'est c'est fondamental on est on est on est mieux servi que par soi-même merci beaucoup euh, joxe woon na fi léegi numéro téléphone numéro 2 bu jongama pa bosam euh, bu bëggee mu rappelé ko mais bon euh, en tout cas le site c'est www www.diongama.com pour retrouver donc cette marque Diongama avec sa palette euh, d'offres de, de produits Euh, moi je vous le recommande euh, testé gu ma nag mais li ma gis daal nuru naag lu baax xaw ma nag <laughs> waaw te bu ñu xoolee ki kay ki kay ki kay commercialisé euh, di di def la promotion initier ko bu ñu xoolee si moom war nañu mën a gëm nga xam ne moo a un organisme certificateur derrière donc euh, merci le numéro on le rappelle avant de se quitter. donc le numéro c'est le 77. 693. 793 ah, 47 22 je répète 77 793 47 22. merci beaucoup yéen ñëpp doon ñu seetaan merci beaucoup à 2STV ci invitation bi kontaan c'est que avant avant ñu commencé nag gis naa la gars ñi tegal la fii benn clip. nga fecc fi fecc bu bu am classe ça ça quand même c'est c'est une véritable sénégalaise en tout cas ñuy remercier waa hôtel euh, Amaralis euh, c'est c'est un très beau cadre avec une musique euh, qu'on perçoit en fond sonore très très beau cadre ñu leen koy recommander bu ngeen ñëwee Saly c'est juste derrière la compagnie d'assurance Amza donc euh, à l'entrée de de Saly très beau cadre personnel très accueillant ñun fi la ñu nekk pratiquement durant tout le week-end avec d'autres programmes qui en place donc euh, restez scotchés sur la 2STV et FM 88.4 merci à tous ceux qui suivaient le live euh, Facebook en streaming donc euh, ce sera toujours sur cette la 2STV vous servir c'est un sacerdoce